min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin wa radi an cheikh alxadim wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din amma baadu ixwata almuslimina wal irada nuxayikum taxiyatan islamia wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci muhammad aleyhi salaatu wassalaam ñoo ngi dollee yeesal suñu njëbbal ci Serigne Touba di yëkkati néew bi ak ziyaar bi teg ko ci loxol alxalifatul aam di tariqatil muridiya ak cheikh Mouhamadul mu mel ne bu ñu jëlee nuyoo bi teg ko ci loxol sëriñ Ousmane Mbakke ibnu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma mel na ne teg nañu ko ci loxol sëriñ bi waaye ñu ngi jël nuyoo mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew ak mbokki taalibe yi teg ko ci loxol sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma mu tegal ñu ko ci loxol mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal jotaay bi rafet rafetlu jotaay bu am solo bii nga xam ne amee nañu ko te ku xool jotaay bi xam nii mu tëddee ak ni mu doxee xam ne jotaayu xam-xam la jotaayu lislaam la waaye jotaay buy defar la te jamono toll na foo xam ne njortu naa ne def luy defar moo ëpp solo def luy yàq tolluwaayu jamono nag ci solo si nga xamee ne am na ko ngir ñu wën ngir ñu mën a wax ak nit ñi ñu tege ci yoonu siraatal mustaqima dafa jot ndax liy yàq bëri na liy fëkke bëri na te li ëpp ci liy fëkkee ci suñuy biir lay nekk ngir mën ñoo teg ci suñu loxoy noonu te suñuy noonu weesuwul ñi nga xam ne buñ leen toppee lum mu yàgg-yàgg ci loxoy seytaane rek lañuy mujje mujjee wala ausu billah yàlla nu ci yàlla musal kon ñu jël tam bi nga xam ne jël nañu jox ma ko jox ma ko ngir ma développé ko waxtaan ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo dëkk Touba ci dëkk bii di Touba muy may Touba. ñu gis na nag ma nit ki balaa mu koy am dafa am lu ko collecté li ko collecté mooy lan mooy baatu tarbiya nit ki bala moo am worma faw mu tarbiye boppam ci waxinam tarbiye boppam ci jëfinam. tarbiyee boppam ci doxinam. bu tudd ñu wax wax bi bari na trop nan wàññi yi baatub tarbiyee nag li muy tekk mooy nga gis koo xam ne xamul fa mu jëm nga jël ko teg ko ci yoon wi ba mu mën faa jaar loolu la ñuy wax la xadd rabba xuluwa mooy mool wi nga xam ne mi ngi soog a juddu. bi mu juddoo fu ne lay teg bopp ba ka ko jël defar ko teg ko ci yoon ba nga xam ne boo ko takkee saret mu nangu boo ko jëlee teg ko ci yoon mu nangu ka ko defar la mu ko defare rabba la ñu koy wax bu ñu xoolee alxuraan baatub rabbu li mu ko indi lépp ci tàmbali ma lay doon xule aoudu bi rabbin naas naas yi ngi jublu nit ki door a feeñ waaye nit ki bi mu feeñee ba toll ci digg dooleem wax nekk waxamaane waxatu ko rab rabbu daf koy woowee malikin naas daf ko wutal buur booba buur rek moo ko mën a teg ci yoon ndax doole jabari bi mu demee ba lomb loxoy buur nag daf koo indil yàlla nga xam ne buur amatul ci moom soxla ñu indil ko yàlla moo di ilaahi naas kon nit ki bu nekkee ci àddina ñett rek lañu ko wooleen bi mu nekkee gone rabbu rab naas lay àndal bi mu demee ba toll ci digg waxamaane malik lay àndal bi mu demee ba xelam dellu si bi mu demee ba ba xelam si nga xam ne mag la al ilaah lay àndal kon rab bu ibtidaan lay doon moo waral nit ñi di wax ne nañuy yar xale yi maanaam yar ca ba muy ndaw yarul islam nag mën nañoo wax ne moom rek la asur boobu nga xam ne ci la suñu boroom tënki diine ji moo de inna diina inda allahi l nga xam ne dañoo wax ne dafa wax ne tagg gi mu tagg diine ji mën nañoo wax ne mënees na koo tagge ab yar ci doomu adama boo xoolee ni ñu sëriñ Touba daan jàngale ab yar ak i teggin mooy lan mooy ku la mag nga weg ko ku la féete suuf nga yërëm ko kuy sa moroom nga def ko ne sa bopp waraa fi kulli xalqin xaqa man ba ci bàyyi may lépp loo gis ci àdduna nga sàmmoonte ak àq ko ko bind loolu boo ko defee mucc nga ci aw ay saw ay amatoo ko li ko waral mooy dañu laa tarbiya kon bu ñu waxee ne ak tarbiyatu moo jiitu ci worma ba noppi nit ki doo ko mën a am worma dañoo war a sàmmonte ak suñu njaboot ca ba ñuy ndaw ñu tarbiyee leen ci yarub lislaam ngir bu ëllëgee ñu xam fa ñuy teg seen tànk ustaas wax na ko léegi jamono ji fii mu tollu ci waxante lu ñaaw jamono ji fii mu toll hmm. ci jëf-jëf ju ñaaw hmm. loo ko waral mooy ñàkk yar bu ànd ak ak teggin rek moo koy waral kon nañu yar xale yi ci yarul islam teg leen ci siraatal mustaqiima bu ko defee li ñu bëgg ñun ci suñu digganteeg li ñuy wut ci ndaw ñi daañu ko am dëkk biir Tuuba nag boo demee ci saadatul muridina fi am daxi xeyrul mursalina di tarjumaanu raaya sëriñ bi bi mu tàmbalee ci borom bi subhaanahu wa taala julli ci muhammad alayhi salaatu wa salaam sant yàlla mi nga xam ne moo yor ay mbiram te tawféexal ko dafa wax ni maa ngi def taalib bii di raaya ci dëkk bii di Touba wax ne yàlla na ko yàlla nangu te aar ko ci daraje yi ki nga xam ne moom lay tagg di muhammad alayhi salaatu wa salaam te dëkk bii di li tax mu ñëw fi du daral dul jaamu jaamu suñu borom subhaanahu wa taala jaamu bu sell ak liggéeyal Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam lam yaskuni mu daw wiru fii maskanihi zalika illa li ibadatullahi tabaraka wa taala fi xidmati rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam kon jaamu yàlla ak liggéeyal Muhammad alayhi salaatu wa salaam moo waraloon Serigne Touba sanc dëkk bi sanc gi mu ko sanc nag te dara waral ko dul ak dëggalam ci digganteem ak boromam ndax ku xam dëkk bi xam cosaan bi xam ne bi koy sëriñ bi di sanc oustaz wax na ko léegi metti woon na lool moom rekk moo fi ñëw nekkal fi boppam nekk ci digg mbandingu dara nekkul gisul yaay gisul baay gisul buy ñaan amul ku nekk amul kenn ku nekk ci ginnaaw naan amin mu sanj ko ci lislaam teg ko ci siraatal mustaqim kon bu fekkee sëriñ bi dafa sanc dëkk bi ci point yooyu yu am solo yooyu nga xam ne dara waralu ko lu yàlla kese ñun ñu nekk ay walliyaan nga xam ne dañoo ñëw ci dëkk bi ngir ku nekk boo naagoo ci sa bopp defe naa yaa indi sa bopp ci dëkk bi da nax sa bopp naago dana la war waaye ñun jublu gu ñu sëriñ bi jublu ak féete gu ñu sëriñ bi féete moo sabab suñu dëkk ci dëkk bii kon képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi war ngaa sàmmoonte ay bëgg-bëgg sëriñ képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bii war ngaa sàmmonteeg li nga xam ne moom la sëriñ bi digle ñu di ko def muy jëfe ndigal yi tey bàyyi tere yi tey moytu aw ay ostaas wax na ko léegi nit du influencer aw ay ndax ay amul njariñ ndax Touba day espoir ci l'islam mhm. Touba day espoir ci ci ci Sénégal Touba day dëkk boo xam ne dëkkub royteef la képp ku fi dëkk nag war ngaa jàngat bu baax tàmbalee ci sa jëmm ji ne tàmbalee ci sa tànk yi ba ca sa kaw boo xoolee sa bopp saa su ne da ngaa war a gis ci sa bopp ne man mii kat damaa war a nekk espoir ci Sénégal damaa war a nekk yaakaar ci senegal nit ñi dañoo war a royee ci man moo waral képp ku dëkk tuuba war ngaa sàmmonte ak bëgg bëgg bëgg bëgg sëriñ bi looy def nga def ko ci yar ak i teggin politique bi bu mu ñu yàqal ndax lim ñuy jural bu ëllëgee mënatuñ ko defar ndax képp koo xam ne dëkk nga ci dëkk bi li waral nga dëkk fi mooy bëgg sëriñ Touba gu mat sëkk bëgg sëriñ Touba gi nag la ko waral mooy saa su ne li ngay ñaan mooy am ngërëmal sëñ Touba bu fekkee ne liy wàlli yan si mi ngi ñëw du ñu yàqal nañu gëm ne mënuñoo am dara loo xam ne luy méngoo ngërëmal sëñ Touba na ñu ànd ak yar ak teggin te moytu wax ju ñaaw ji képp kilifa gu fi nekk di politique da war a nekk espoir exemplaire nga war a doon ci politique di moytu wax ju ñaaw ju amul solo di moytu xeex ak xuloo mbokk yi luy jeex kenn du ko jënd lu dul jeex politique nekk ak Serigne Touba di ko liggéeyal ba ilaa yawmi diine dañ fee war a nekk di liggéeyal Serigne bi ëllëg suñu njaboot wuyu suñu kontine loolu. kon nañu fexe ba bu ñu politique politique bu àndul ak yar ak i teggin nañu politique politique bu am yar ami teggin tege ci lislaam bañ a xasse bañ a waxanteelu ñaaw loolu bu ñu ko defee waxuma la dëkk yi di Sénégal. waaye àdduna bi yëpp danañ jël tuubaa def ko espoir di ko roy ci yar ak teggin Serigne Touba nag damay wax benn wax bu gàtt boo xam ne Serigne bi bi muy sanc dëkk bi dafa ànd ak menn mag moo xam ne ci dëkk bi la nekkoon bi ñu demee ba guddi jot sëriñ bi yónni ko ndoxum jàpp mu nar a jaar ci penku bi sëriñ bi mu nar a jaar ci sowu bi sëriñ bi ne ko jaaral ci penku bi bi mu jaaree ci penku bi mu dem ba yàgg mu dajeek ay mag yoo xam ne dañ daan màngaan ku ay pël yoo xam ne dañ daan màngaan ku ñu dajeel dañ lay rey nangu li nga yor bi ñu dajeek sëriñ boobu pël yi jàpp ko mu ne leen sëriñ Touba moo ma yónni ndox fekk yàgg nañoo dégg turi sëriñ Touba dañ koo may ndox ne ko boo demee neen sëriñ bi nañu ñaanal bi mu ñëwee ci sëriñ bi wax ko ko ne ko pël yooyu nga daan dégg bi nga nekkee Mbakke ñoom laa dajeel ñoo ma may ndox mi nee nañ nga ñaanal leen Sëriñ Tuubaa lam ca teg mooy maa ngi lay seyneel ne pël yooyu suñu boroom jéggal na leen ci mbooleem ñaawteef ñu mus a def jéggal na leen ba ci seen xar ya ñuy sàmm ak seen nag yi ak seen bëy yi ci sababu sabab gi ñu fanaan Tuubaa moo waral ñu wax ne bilaaduna Sénégal maxartunaa tuuba wa sayxunaa bamba xadimul mujtaba man daxala tuuba laa yadxulu naara man daxala tuuba daxala aljanna wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh